alsalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin bokki jullit yu bokki taalibi yu tëdd yi ngi dellu si di leen nuyu seen tur ak seen sant di leen siyaara ci weer wu tedd wii nga xam ne ci lañu soobu di weer wu mag di weer woo xam ne ci sunu borom tabaaraka wa taala baaxe jullit yi ba wàcc ci alquranul karim chahru <coughs> ramadan alladi unsila fihi alquran hudan linnaas téere bu tedd booba nga xam ne mooy gindi mbindeef yi ci la ko sunu borom wàcc ci weeru tëdd wii ngir jubal doomu aadama yi di weer woo xam ne shahru rida war rahma weeru ngërëm la weeru yërmande la di weer woo xam ne léppam xeewal la léppam ab tereet la weer woo xam ne ci la sunu sang bu tedd ba sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne awaluhu rahma wa wasatuhu maxfira wa axiruhu itqun min an naar weer woo xam ni njëlbéen gi yërmande yërmande la jóge ci sunu borom tabarak wa taala tabarak wa taala jëm ci mbindeef yi ak jullit yi digg bi di ak njëggal ñeel jullit yi mujj gi di goreel ci sawara kon weer wu tedd la sunu sëriñ di sunu yaakaar tey ëllëg di mawlaana a ahmadul xadim ridwanullahi alayhi wa nafaana bi moom it mu sargal weer wi santaat sunu borom tabaaraka wa taala ci baaxe gi mu baaxe julli di ba andi guddi guddi gu tedd gii nga xam ne ci biir weeru koor la ko sunu borom andi ci la sëñ bi waxee ne alhamdulilahi almujibi dil qadar man qasana fadlan bi laylatil qadar muadiman li sha'niha fi dahri xataa adan xayran min alfi shahri suñ baa ngi kañ sunu borom di sant sunu borom mi nga xam ni moo indi ngëneel yu tedd yii moo indi ngëneel ci guddi gu tedd gii di guddi laylatul xadar sëñ Tuubaa wax ne sunu borom ci boppam moo màggal guddi gi ba tax mu def ko guddi goo xam ne jëf joo ci jëf mooy wecc jëf ko ci junniy weer di juróom-ñetti fukki at ak kon nag nuy profité ci weer wi ak guddi gi nu dëgmal di ci siyaare bokki jullit yëpp di ko tàmbalee ci sunu kilifa bopp di Serigne Touba ak Cheikh Mouhamadul Muntaha xafidahullahu wa di ko ci ziare bu baax di ko ci ndokkeel bu baax di ci ñaan sunu borom tabaarak wa taala al aliyil mu yàggal ko fi te may ko wér ba lépp li mu yéenee liggéeyal waj wajuram yu tedd ya yéen a ko liggéeyal maamam ju tedd ja di Cheikhul Xadim yéen a ko liggéeyal ak tariqal muridiya yéen a ko liggéeyal diine islaam mu def ko na ko bëggee di jëmm joo xam ne moom a Cheikh Mouhamadul Muntaxa taarub yoon wi la taarub lislaam la di jëmm joo xam ne sàmm yoonu sëriñ Touba yi taxawu njabootu sëriñ Touba yi taxawu diine islaam te sàmmit li nga xam ni euh, bokk na ci li gën ci mbindeef yi muy xam-xam manis naa fa ne mu Cheikh Mouhamadul Muntaxa boo amoon ab tool toolam mooy xam-xam alhamdulilahi rabil alamina sunu borom boole ko ci borom xam-xam yu mag yi te xam ngeen ne borom xam-xam yi ñoo fi wuutu yonent yi ndax sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne al ulama warasatul anbiya na ne borom xam yi ñoo fi wuutu yonent bi ñu demee ba nga xam ne yonent amatul borom xam-xam yi ñoo leen fi wuutu ñooy dox dox yéen ya ñu daan dox ci digle lañu daan digle di tere lañu daan tere di teete jullit yi ci yoon wa nga xam ne moo gën ci ñoom tey ak ëllëg Cheikh Mouhamadul Mountakha te ñooñu la bokk kon loolu ndam la ci askanu askan wépp ndam la ci yoon wépp ndam la itam ci diine islam yëpp yàlla def ko muy jëmm joo xam ne noonu sëñ Tuubaa ñaane woon sët yoo xam ne dañuy yeesal yoonu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba sëñ Tuubaa ñaanal ko boppam sunu borom tabaraka wa taala sëñ Muntaxa ci ñooñu la bokk yoon wi nga xam ne itam moom la sëñ Tuubaa xàll nga xam ne waxal na ko boppam nga xam ne bu ñu bu ñu bu ñu wax ne sëñ bi lu ko tax a jóg ñu ne lii moo ko tax a jóg mooy fi mu waxee ne lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xarra wa inni Ahmadu xam ne sëñ bi moom dafa définir li ko tax a jóg waa li ko yitteel mooy ñëw yeesal defaraat rénové. sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba képp ku bëgg a àgg ci sunu borom bi waasitati rasul yi sallallahu alayhi wa sallam nga mën ca àgg yoon woowu sëñ Tuubaa xàlloon sëñ Muntaxa bokk na ci jëwriñ yi koy taxawu waxtu wu nekk di ko leeral waxtu wu nekk di ci xettali mbindeef yi yàlla def nag bis bii nu dëgmal te di ko waajal wàllu waral jataay bi di bis boo xam ne kii tax nu di ko def mbaa ki ko doon def te jox nu ndigal nu wéel liggéey boobu di almarhuma soxna Maymunatu Mbàkke ridwanullahi alayha wa nafaana bi barakatiha lépp bis bi da ko tegoon ci loxol ak Cheikh Mouhamadul Muntaxa ni mu ko baaxoo defi waxtu weer yu teroo wala muy bëgg a teru daan dem ci ki fi nekkal sëñ Touba di kenn ci magam yi laajaat la ndigalul ndax day wéyal liggéey bi wala déet waaye bu ko masaa def ba am ci ndigal ba noppi ndax may boo ma mu ne ma ma ci sama doom ji di Cheikh Mouhamadul Mountakha daanaka am naa ndigalul njabootuk sëñ Touba gi. kon sóobu ci liggéey bi mooy li des waaye bala nga ciy sóobu da dem ba ci sëriñ Muntaxa waxtaan ceeg moom mu wax la na na mu bëgg nga doxale ko ci biir ak ci bitti ci tàmbale ba ca mujj te booba cër yi nga xam ne moom la sunu borom def ci moom ak cegul ci moom ndax boobu waxaguma waxuma la nekk alxalifa alxalifatul am li tariqa al muridiya waaye boobu nekkagul sax xalifa ko sëñ Basiiru fu mu mosaa nekk fu ne ma fekk fu ne ko sa wajuru tëdd ba sa bajen bu tëdd ba sa sëriñ ba nee na am na ndigalul wéyal bis bi waaye nag léppi doxe doxin bi ak doxaliin bi na mu ko daan teg ci sa loxo noonu la ko defee sëñ Muntaxa rafetlu loolu lool ànd ak mbégam ànd ak ànd ak mbégteem ne ma defeel nii defeel nii defeel nii waxeel nii waxeel nii waxeel loolu moo fi nekkoon naka jekk ba yàlla def tey mu toog ci jataayu sëriñ Tuubaa nekk as nekk sëriñ Tuubaa loolu moo waral noonu soxna si baaxoo def te bi mu làqoog léegi di ñaar fukki at ak benn ndax ren mooy juróom ñaar fukkeelu at ak benn bi soxna si tàmbalee liggéey bi defal na ko boppam ci jëmmam ju tedd ja juróom fukki at ak benn yàlla def bi mu làqoo ak léegi def nañ ko gannaawam ñaar fukki at maag sama ma ju tedd ja di sama lépp di sama wëllëre di jaaratullahi mariam maam mbusum baali mbakke rahmatullahi taala alayha bi nga xamante ne dem naa ba wax sa mu Muntaxa loolu mu ne ma yeesalaat naa ndigal li danaa leen ci ñaanal ba yéene ju ngeen ci am ngeen jëfe ko nu kawe seen yéene nem daa ci teg ne ma nag te ngeen xam ne liggéey ba bépp maa ngi maa maa yow ak maa ngi yéen noo koy ànd mm-hmm. ci biir ba ci biti mm-hmm. daal di jox ndigal ab taawam di sëriñ koso daaw da ko njëkk a yebal mu ñëw ba fii ci man mu ne ma sëñ bi nee na bis bi bisam boppama waaye nag nee na nga ñëw ànd ak man mu wuysu ko fekk dama naa ba am ndigal bi ma demee mu ne ma noonu ma la joxe ndigal daa joxe ndigal koso mii koso mii nga xam ne wajuram nga léppam nga waaye nag ndigal li ma ko jox mooy foo ci toll ak wet goo bëgg mu doxe ko mbaa mu awla ca mbaa nga yebal ko ca mbaa lu ko bëgg a def loo def loo ko ko noonu la ñu àndi liggéey bi daaw ba liggéey bi jeex ren jiit bi nga xamante ne dem naa ba am ci ndigalit kàddu yu tedd yooyu ak wax yu tedd yooyu moom la sëñ bi waxaat ci seen Koso soxna si def daan wax ne <coughs> yett yëf di sant na ci yàlla ñu ko lan ak lan mu ne sama cofeel ci alxuraan te mag bëgg alxuraan ñëwuma ci kenn sama gëm sëñ Tuubaa ñëwuma ci kenn ndax jàpp ma ne kenn gën na ma koo gëm sama wóolu sëñ Tuubaa ak sama doylu sëñ Tuubaa ñëwuma ci kenn la ko la ma koy tëje nag mooy fas naa yéene lépp lu ma am naa ko def ci liggéeyal sëñ Tuubaa sama dund gépp fas naa ko yéene jeexal ci liggéeyal sëñ Tuba loolu moo sababoon néew na fu ko waay fekk te fekk mu yor kaamilub alxuraanul karim di jàng wala bu yorul kaamil bi di jàngit ma ngi koy tari loolu moo doon moo sababoon fépp fu daare alxuraan ne rawatina ji ci yii ci biir dëkk bi ak jamono bu mën a doon ak ku fi mënoon nekk alxalifa dundug daaray kaamil yi nakk jekk moo ko gàddu di ko def noonu mu saxaloon ku fi nekkal sëñ Tuubaa ku ne ndebul añeem li ak ndebul reeram bi du manqué ci yow nga xam ne dara wax ne dafa day dafa day jàpp ni bu fi sëñ Tuubaa nekkoon ci boppam loolee warteef la ci moom te da koy saxal da ko def noonu la ko daan defal mboolem ñi fi nekkal sëñ Tuubaa waaye noonu it da daan saytoo daaray kaamil yi seen café seenub añ seenub reer naka jekk moo ko féetewoo ba lawal ko ci yeneen daaray kaamil yoon woowu mu nekkoon nag nga xam ne dafa jeexal léppam ci liggéeyal sunu borom tabaaraka wa taala te da ko def ci alxuraanul karim defal defoon boppam taale bi sëñ Tuubaa boo xam ne du wàcc mukk mukk ci lé ci toolu sëñ Tuubaa loolu di ca la yar ca la te moom la nu digal te wallaahi bu ne bu ay gor ca la sax ba duna tukki hmm? fi nekk rek moo fi nekk fas nañu yéene bis bii fa ko soxna may yóbbu woon fas nañu ko yéene yóbbu fa ko gën a kawe ndax sëriñ Tuubaa amul tànki gannaaw te bëgg-bëggub soxna may ak pas-pasub soxna may ci liggéeyal sëriñ Tuubaa àggoon na foo xam ni ba fi bàyyi woon bant sax bant boo war naa mën a wéyal liggéey ba kon nag noo ngi dellu di sant bokki bokk yépp di sant bokki taalibi yépp ni ma ko waxee bokk yi nañu xam ne fii seen këra kër gi seen kër wajur la kër gi seen seen kër sëriñ la kër gi seen kër bopp la dafa tolloo kër faw mu am li ñuy tuddee ka koy wattu loole lañu jàppe sunu bopp waaye njabootu Sëñ Tuubaa gépp noo ñoom noo yem ci kër gi kon nag bis bi seen bisu bopp la naka noonu mboolem taalibi Sëñ Tuubaa yi ñoo xam ni soxna may dafa da leen a boole woon ci si noonu ñoo jàpp seen bopp def taalibi Sëñ Tuubaa noonu la soxna may defoon boppam taalibi Sëñ Tuubaa dundam gépp da ko jeexal ci liggéeyal sëñ tubaa dundam gépp mu def ko ci sopp sëñ tubaa lu mu am mu def ko addi sëñ tubaa delloo ko ci jànqate alxuraan yi delloo ko ci daaray kaamil yi delloo ko ci bokki jullit yi kon nag bis baa ngi noonu